jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàcciwaay bu baax a baax di leen wax ne nag ñoo ngi ci émission bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo jàmmaarloo nag su ma ko waxee xel dem ci fans yi bu ma ko waxee xel yi dem ci mbër yi tey nag ma dalal fi ki nga xamante ni nii mooy Jador. Jador laay wax léegi mbokk yi nee na ngeen bàyyi di wax Ndiaga Dolé Ndiaga Dolé xew na Jador moo xew. Jador doomu réew doomu réew mi. Jador diwlin la wala ataaya bi la wala ban la ci. lépp nuyu naa la. ne Jador rek <laughs> daal jeexal na ah, nuyu naa la yëkkati micro bi. Ah, maa lay fay bu baax a baax. Mhm. ginnaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëriñ sëriñ Alioune Maana Ndiaye di sant waa Kër Cheikh Mahfou waa Kër Cheikh Mahfou Faral di sant njabootu Cheikh Nassar bi yëpp di leen ñu yàgg fi loolu. di sant waa Njaasaan di ko dalee ci xalifa bi ba ki nekk suuf di ñaanal ñëpp ñu yàgg fi di sant koo xamante ne tamit sama benn grand la mënu maa tudd ma tudd turam muy Xaarim Jaañ mhm. suñu xarit la moo ñuy puuse di gën a yokk suñu taalibe ndax buñ ko xoolee taalibe rek la ñu gis si moom ndax lu mu def si kër gi rek day mel ni ñun la koy defal mhm. kon kooku ñun amuñu fayam Xaarim Jaay maa ngi lay sant la di la fa sant dafa baax baax yaag sa yaay Yaasin Dukure di la ñaanal yàlla nga yeggale sa sago waa di sant tamit ñi ma àndal ku si mel ni Thié ak Karbala Assane Badiane waaw ma seen fa ndax dañoo bàyyi ñuy def lépp ñëw ànd man gunge si ma mhm. di sant tamit ñi nekk si plateau bi waa di la nuyuwaat yow tamit bu baax a baax di la wax félicitation waaw merci beaucoup Euh, balaa may ñëw ci làmb ji sax. Mm. dama lay laaj ñaata combat nga jot a def. waaye ci 15 combats. 15 combats de victoires 2 waa waaw 13 victoires de défaites. gis ngeen mbokk yi quinze combats 13 victoires 2 défaites yoon bi nag xaw na yéex mais xëy na peut-être noonu la ko yàlla bëggee wala boog noonu la war demee. Euh, ñan ak ñan nga jote daan parce que su may su ma nee bu ma nee Zador ñu ci bàyyi duñu xam mais su ma nee Ndiaga Dolé ñu ci bàyyi seen xel dina dem ci Ndiaga doole soo ma dee limal pour nit ñi mën a fàttalikuwaat Ndiaga Dolé ñan ak ñan la daan ci ñoo xamante ni mën nga leen lim. ñi ma daan kay bari nañ su ma fi nekkee di ko lim tamit mooy loolu mais xam nga man moom maa yor jikkoy mbaar man su ma xasee pare si lii rek pare naa ci li sama kanam rek laa xool mais Pagalu Lamsar Noiro libidoor bu Grand fii daanaka boo invité woon daanaka suñu génération boo invité woon ñëpp dama leen freiné. Mm-hmm. mais nag làmb nag moom dañ naan yoonu ndaw du gaaw. Mm-hmm. te ñun nag moom suñu yoon yàqamtuñ ci dara ndax ay jaam lañ te dañoo gëm suñu borom mais fuñ mënti toll ñu ngi liggéey mais bu doon dañuy toog tey di wax suñu morom kon fu fi ñoom Sa Thiès sax Ama nekk ñun foofu la ñuy nekk ndax ba ñuy débuté daanaka benn at nañu rawee wala ñaari at. Mm-hmm. te lépp fii la ñu fekk suñu kanam kon moo tax dañuy sabablu rek ba tey tamit am na suñu morom yoo xamante ne ñoo nekk nag ñun ci làmb ji xaaj bi ñëpp découragé nañ bàyyi. Mm-hmm. ndax toog mënuñu am combat. mais nag ñun dañoo gëm jël suñu temps nekk ci xam ne xëcc bu dawul daggul dikk moo tax ñu nekk ci làmb ji ba tey mais bëri na suñuy morom yoo xamante ne ñoo doon nekkandoog ñun ci làmb ji ku waxoon tey du ngeen nekk champion ñu xeex yow wala ñu weddi ko mais nag ñun daal ñu ngi toog. di xëcc suñu wërsëg bu si nekkee suñu borom na ko nam bu si kiiwul tamit nañu may da leneen loo xamante ne moo gën a làmb. Euh, kenn du la gis di laajte ana mbër mi mais des fois dañuy gis sa combat dafay xaw a soyanto wala des fois euh, pour nga am combat sax dafay xaw a metti lan la. man du ma ne si mbër yi rek quoi ndax mbër yi bëgg nañu bëri si promoteur yi la laay wax. Mhm. ndax tamit làmb dafa baaxoo instant bi ñu toll nii benn phénomène boo xamante ne comme nawetaan lañ ko jàppee. ñoom xoolatuñu xoolatuñ mbër quoi. moo tax làmb ji fi mu toll nii waa CNG nag jëluñ seen matuwaay mais tamit erreur gars yi ñu ngi dégg erreur boo xamante ne phénomène bi ñu jël nii ñu gis ni stade dana fees de. mais mhm. dinañ fi dóor mbër boo xamante ne jàppee ko mbër la mu dee si stade bi ñu dul nit ñi problème ndax léegi ku jug rek coow toppale rek ñu ne mbër nga mais làmb tey bu doon doole rek la. ñu teg mhm. bool bi ne doole mooy lekk. kon mbëri bari duñ dugal seen loxo ñu ngi leen di tudd nag kenn ma kenn nag ma benn mbër mais li may wax waxin la ko waa lan moo tax nga wax loolu. non xam nga tey jii. Mhm. man suñ ma toogee du ma wutal combat sax ma toog dégg damay damay mujjee dañ may dañ may wax ay bu mujj man damay découragé di yàgg diw ba ma toog naan waa baax na bu ñëwee am problème ñaari fan ñu ne ma non kooku nangul de ñu ngi xool keneen jékki jaar kooku nanguwul ñu ngi xool keneen. mujj man damay mujjee toog dama yaa quelque chose lan la xaw ma nag si promoteur yi ñoo dul wax dëgg xaw ma mbëri ñooy moytu man je ne comprends pas quoi. mais Ndiaga Ndiaga yow euh, j'adore boog nga baal ma lan la la gars di dawee gëj nga bëri gars yi xamee est-ce que dañ naan j'adore est-ce que pertul repère nga dikk naan gars yi dañ lay daw lan la lay dawee. non du dara xaw nga ñun problème mooy. ñun ku ñu xam xam ne suñu làmb du métti. du du ko waa mm-hmm. ndax man mosuma bëri combat bu yomb. sama kaw maag Kara la sama kaw maag bu Zapp ba ma koy daan. Mhm. boobu Koul mu ngi teg la ay victoire am yu bari bari bari musul daanu. Mhm. mu ñëw gars yi nag ma jàppee damay rek mu ñëw ma door ko mu daanu. Pakal Lamsaar muy rampe fii dóor ñagas dóor fii yi ñuy toog. Mhm. gars yi naan mu ñëw ma dóor ko mu kaawo ma yekkale ko man sama ko man c'est que man yëf góor laa ko jàppee. moo tax. musuma bëri combat bu yomb te bëgguma combat bu yomb. moo tax gars yi bu ñu déggee njaga doole bi nag dañ naan yaakaar ne mooy loolu moo tax léegi ma dindi njaga doole bi teg ko fee léegi Jador doomu réew mi la léegi dóoreetuma kenn damay jàpp rek diwla ba nga niin rek bàyyi nga wàcc ndànk. mais léegi nag Jador bi fi mu toll nii moom yaa ngi ciy dóor dóor yu métti. non dóoraguma fi kenn. Hmm. waaw gisoo kii dama ko daanaka dama ko nii na rek. mais dinaa ñëw sa combat ak ñaar yaar. Mhm. ndax dama ñëw signature ba. Mhm. nga ne ko dama lay daan. force mu ne la fii waaw mu ne la maa ngi ñëw mu ne la fii. Mhm. yàllaa fi nekk maa ngi yàlla ndam nga ne ko amul yàlla amul dara nit da ngay andi li nga gëm. dama lay daan par force laa la wax. ñëpp dal seen gémmiñ. ñu ci bëri na dafa am foo teg loolu. lan moo tax nga waxee woon noonu signature bi. non gëm-gëm la rek. waaw moom dama may jaxaseeg yàlla. ma ne ko mënoo ma jaxaseeg yàlla. ndax ku dee yàlla la rey. Mhm. keneen wàccul di rey doomu aadama yi. dama lay daan force fi ma ko teg gëm sama bopp ak gëm li ma entraîné laa ko teg teguma ma ko si ñaan teguma ko ndax bu doon ñaan mooy tax nit nit tey di daan nit. Mhm. kon sëriñ yi ñu ñaanal ñoom ñooy tax ngemb ndax ñu gën a bëgg xaalis ñooñu bëgg gën a bëgg ay million mhm. bu doon ay ñaan rek la dañ la naan nii demal nga xool ko mu toog kon sëriñ yi yaakaar naa ñoom ñooy takk seen ngemb wala ñu yebal seen doom yi nga xamante ne ñoo gën a jege nee dem leen ngeen lekk si millions yi. mais da ngay liggéey lu métti boo liggéeyee ba yërëm sa bopp ma leer la ni boo tëddee yaa ngi daj ay coono yoo xamante ne sa diggante suñu borom rek xam nga ne yaa ngi daj coono. Mhm. kon boo jàkkaarloog sa morom xam nga ni sa morom mënu laa teg coono foofu rek laa ko teg moo tax mu wax man la mu man ko mu lay neex mu lay naqar dama lay daan ba mu waxee loolu mu ne ma mu expliqué man ko li waral loolu fi ma ko teg mooy damaa gëm sama bopp liggéey lu métti. xam ne damaa liggéey lu métti moo tax du ma taxaw yow si côté bépp nag foo yaakaar. mais ngeen ñëw waa 100 pour cent géejawaay. Mhm. Euh, taxawal làmb ji. Mhm. taxawal bi nga doon taxawal est-ce que métti woon na ci sa côté. non méttiwul benn wax ak benn tontu la ndax si ay école la. Mhm. ndax école de lutte tey jii ñun ñëpp si ay école lañ bokk ñoom bu ñu defee seen association ñun seen njaboot lañ. mënuñ waxaale ak ñun mënuñ leen fayeeku teg si tamit mu nekk seen première édition nekk seen baptême du feu. Mhm. kon ñun loo xamante ne day réussiro bis bi rek moom la ñuy wut. dëgg teg nekk waa Guédiawaye tëgg ko teg si mu nekkoon drapeau monsieur le maire. kon ñun dañuy bëgg tey bii bis bi bu dee ñun mbëri dañuy perte deux cent pour cent sax ñoom ñu génn cinq cent pour cent ñun loolu moo ñu gënal. Mhm. ndax ñoom fi mu toll nii opte bi nga xamante ne tey am nañ ko liñ mën mooy pousser leen ci may leen ci fit. ba ñu ñemee bu ko defee ñun du du pour ñun de mais suñuy raq yi nga xamante ne kenn xamagu leen mun nañ bañ a sëme si làmb mm-hmm. wala ñuy toog fii di topp ay promoteur wala ñuy toog fii def leneen ndax ñoom niñ def bu ko beneen koñ defoon beneen koñ def beneen quartier def ko keneen def ko gox yi nga xamante ne ñoo nekkoon sa mbër yi di toog ñiy bàyyi def di di def videur ñiy bàyyi li mbër yooyu yëpp léegi ñu suqali ko waat ndax am na mbër yu bari ñu ngi fi tey boîte de nuit yi la ñuy di kii ndax dañuy toog xaar ba découragé mujj bi dañuy toog xamatuñ fu ñu jëm mujjee toog ay biideur nekk ay leneen ak leneen lu mel doon dong moo ko waral nag du leneen moo tax ñoom ñu ngi leen di encouragé bu baax a baax di leen félicité seen bis bi di leen ñaanal yàlla seen yeneen journée yi ñu dëgmal suñ borom may leen si ay ndam yu kawee kawe. Hmm. mais di ma gis euh, nga jël ñaari yaar. Hmm. ñaar yaar gu jun bëri. Hmm. nga dem jël ñaar yaar lu wóoroon choix boobu. man aw ma dama leen wax dem leen ngeen wëre adversaire ku ngeen am rek bu ko ñëwee ma bëre. njëkkewuñ ci ñaari yaar de. bëri na ay mbër yuñ ñu dem fa. ku mel ni Baara Ndiaye dem nañ seet ko mu ne combat bi dafa jege. exploseur bi nekkoon écurie Fass dem nañ seet mu ne combat bi daa jege. bëri na ay mbër yuñ ñu seeti ku ñu wax amoo benn lay booy wax lu dul naan combat bi dafa jege ndax combat bi ñu koy taxawal daanaka un mois sec lay nekk. Mm-hmm. man leen man mbër bu ngeen am baax na ma toog naa ba ay trois jours ñu woo ma ne ma ñaari yaar nangu na man leen am problème làmb la làmb la amul leneen mais bu doon tey damay xool ci palmarès wala may xool ci code wala may xool ci code taaf wala fu ma taxaw nangam sangam kon dinaa bëri bàyyi bëri du ma bëri ak ñaari yaar ndax ñaari yaar maak moom làmb boolewuñu palmarès boolewuñu dëgg la moo ma jiitu ci làmb nag. Mhm. mais moom moo ma ëpp ay tolof tolof fukki junni yoon ci làmb. noonu la demee. moo la ëpp. mopp ay tolof tolof fukki junni yoon ci làmb ndax defe di am ci làmb awma ko ñi ko daan su ma leen jàppee dama leen damm. mais dañoo gisoon ne ay ay adversaire de taille ngeen yéen ñaar. waaw loolu moo ma ci gën a poussé sax ndax te ñaari yaar bu doon tey daal nekk ñii fi comme yeneen kii bu ñu ma ko joxee dama leen du ma ko jël. Mhm. mais bañ ko doxee ginnaaw nangu na te buñ taxawee bu summee ko mu sumee ko ndax man làmb loolu rek moo ma ciy neex. man làmb bi nga xamante ne laa gën a bëgg na nga sumbeeku mu summeeku ñu xamante ne yéen ñaari adversaire la taay leen wala boobu bu lay ëpp ma ëpp la man loolu laa bëgg si làmb quoi mais bëgguma di bëri nit mu leer da ngay summeeku ñu ne kii bu jàppee ki da koy rey mm. man bëgguma loolu mais dama gis ngeen summeeku ku ci nekk nekk ci préparation am ngay ñëw ba ci digg géew bi abit bi sifflé mm-hmm. mais ñu gis ne combat bi dafa xaw a yomb prib dib la benn song la làmb ji jeex nu mu demee noonu dala ragal wala li nga ko sëf la àttanul wala nan la demee non sëfuma ko dara mbër moom du ragal mbër moom mënul ragal mbër mbër mhm. mënul waajee këram def li mu war a def ñëw ba si làmb ñu naan day ragal loolu yebewul ay supporter am noonu sax làmb ju ne rek ak la say xew mhm. làmb ji keroog noonu la mënoon demee rek ndax man du ma ko may mu xalaat ndax xam la moo tax mhm. ñaar moo ma gën a gëj ci làmb ji man maa ngi compétir man su ma toogee aw ma combat tamit maa ngi dem di compétir kon man am naa ay repères yoo xamante ne lu mu dee bu dee benn point sax dama ko fay ëppale ci côté boobu. Mm-hmm. koo xamante ne tam toog na dama trois ans wala quatre ans ngel jël ko mujjee daan. Mm-hmm. toog na lu ma trois ans wala quatre ans bëriwul kooku bu ñu ñëwee. balaa muy mm-hmm. amaat repère. damay fobeere dem sama yoon rek. mais ñëwaatal ma ci combat bi arbitre bi sifflé na. waaw dox ci kaw mu sànni deux coups trois coups yoo xam ne dalul nga doon jàpp ko ëñ. defe naa da nga dugal ñaari coup rokas ba pare. waaw dama doon ñaari berkin rek. Mhm. mu tourné déclenché mbootu tàqali ko mu wës mu yegg suuf. mais loolu mbot la. mais eh, mbootu tàqali la rek xëy na daa bëggoon ñu tàqali ko rek waaw mbot bu mel noonu la Balla Gaye doon def moog Eumeu Sène wala Eumeu Sène suruxal ko mbootu tàqali la rek de. nga jóge ca keroog ngay ñibbi waa géej waa yëngu ah ñu gis loo xamante ni namoon nañ ko ci ci ci Zador. bi nga ñibbee toog xalaat ak mbokk yu ñëw fon nga gën a tegaat làmb moment boobu. mais mooy li a la wax rek xam ma tey jii. Mm-hmm. sama waa koñ man aw ma seen fay. Mm-hmm. li ma mun mooy génn di bëreel di indil ndam fu ma dem feneen nekkuñu fa teguñu fa seen tànk sax damay rente pour yóbbul leen ndam. Mm-hmm. te ñu yëg ko ñu yàq koo yëg man noonu laay doxee quoi moo tax tey ñoom ñii dañ may yërëm su may bëree xam naa ne ñoom. dañuy am ci man yërmande waa mais man yërëm ma sama bopp ndax man jàpp naa ñi may dayanteel duñ ay jinne duñ ay nuuxur ay doomu aadama lañ ni man te ay góor yàlla lañ comme man. Mm-hmm. moo tax man mosuma bëri di xalaat lii day yomb wala lii day def nii saa yu may bëri jàpp naa ne combat bi may bëri moo war a gën a métti saison bi su may bëri fu may dem loolu laay yóbbaale moo tax lu métti su ma ko fekkee rek dama ko fay xaar day fekk man pare woon naa ko bu yàgg. man loolu laa gëm quoi philosophie boobu laay doxee sama waa koñ nag dañoo am yéene si man te tamit man dama bokk champion yi nga xamante ne dañoo war a téye làmb ji géejawaay aba géejawaay man mënu ma fa taxaw taxawaay boo xamante ne mm-hmm. mbëru géejawaay tenor yu fa nekk ku am combat te contact jago doole sa sa xelu dal mm-hmm. yaa may dégg kon nag ñun dafa dafa geesu dafa dafa jot tey fi ñu toll nii waa géejawaay geesuñu xam ne ñun ñii mm-hmm. war nañoo mën a téye làmb ji suñuy loxo mais léegi lan mooy problème bi. problème bi du dara lu ñàkk ay adversaire yoo xamante ne mooy loolu bu fekkoon tey ñu ñooy defaroon suñu bopp suñu yoon kon instant ay tafaatin mi fu mu teg tànkam lañ fay teg suñu tànk ndax ay morom lañ. xam nga li may wax chaque jour nii mbër moom bu amee victoire tuuti dafay xaw a dof ndax da lay limal ay mbër yoo xamante ne da koy leer na ne mënu yegg foofu sa diggante ak Bara Ndiaye combat mënu koo dàq. te yow fi mu toll nii ñaari défaite yi nga am yëpp bi paasal nga ko jëlee pourquoi pas nga duggaat bi paasal xool koo fa bëree. dégg la ma de parcelle moom fi mu toll nii déglu ma bañu fa kenn mais sama adversaire bi fa doon xalaat am nañ koo combat quoi ñoom ñëpp ñu ngi ci contrat yaa ma dégg kon nag instant bi ma dama bëgg a bëre mbër ma bëgg a bëre na ñëw ñu bëre ñu bëgg a bëre ñi war a bëre ak man xam nañ seen bopp ñu ngi fii yow ak Belende combat du ko dàq. maa ak Belende Belende na bëre sama raq. beneen am naa ko mën a fii ñoom ñu dem di ko jox. non dañuy waxtaan rek du question utal adversaire beneen de. fi mu doon passé moom góor soo fa neex la. beneen de càndum deux. waaw loolu combat bu neex la. dawuma ko nag wala suscité ma ko ndax mbër. sa digganteeg Ndiaye Tine. sama digganteeg Ndiaye Tine. Ndiaye Tine yéen a defe naa yéen a bokk benn journée bi ngeen bëre ndax da ngaa ba géej waaye mu ba Ibama. waaw mais Ndiaye Tine xam naa ni loolu bu ñu ko waxee bi tamit boo génnee damay ragal bool booli woo la indi la bëggoo Ndiaye Tine ndax ñoom. Mm-hmm. ñoom ñoo ma dul bëgg. ñoom ñoo dul xalaat njaga doole ndax ñoom Ndiaye Tine gi nga daaram bii mu jógee nii ñoom daa instant yi nii ñoom daanaka fi mu dañ koy jéem a yeggal ci kaw de. baadu mbëru VIP la ñu xalaatuñ leneen fi mu toll nii victoire am bii nii duñ ko dugalaat ci lu metti de lu leer laa la wax instant yi nii. léegi yow boo mu dee limal ñi nga xamante ni ñoom nga ba ñan lay nekk. man daal ay Baar Ndiaye Fass tey Tyson numéro 2 bu ëmb seen. ñooñ samay adversaire de taille lañ xam nga ñooñ buñ sumeeku mu sumeeku lu mu ti xew dañuy naan kii kenn ku ne mën na daan moromam. Mm-hmm. mais di bëreeg nit daan ko ñu naan xamoon naa ko victoire bi sax lu mu la neex neex ne après dootul neex xam nga tey bu doon tey dañoo teg làmb yi ñu teg tournoi. Mm-hmm. suñuy morom ah. Mm-hmm. teg soq. mbër boobu nekk tëngéej kii doomu dàngu mhm. ñooñu ñëpp même catégorie la mais dañ may moytu comme man yaa quelque chose wala mais loolu seen problème la. mais nag da ngay wàññi xeex boo wàññi xeex ba boo non làmb la ñu wax. ko bëgg simple na ñëw bu ñu xoolee daje dañu day simple mais bëre dóor moom amul ay dem bëre dóor naan dañuy moytu xeex wala nangam sangam maanaam ku ma moom bu yoboo xeex da xeex mu lay neex da ngay xeex mu lay naqari amul sax ma dem te ñëw ndax tamit ñun li ñuy def ragaluñ ko quoi te fañ jëm ragaluñ ko muy neex muy naqari tamit li ñu war a def dañ koy def rek suñ borom moom tànk mu ngi bind suñ jëb yi ñuy xëy di am wér. Mhm. am kii la ñu war a nekk 24 heures sur 24 dañ ciy nekk. combat bu ñu am ku ñu war a dajanteel jàppal ni bàyyi ngaa nekk ci jàmm ba combat jeex ci côté bépp nag. ku ñu jàppal ne bàyyi ngaa nekk ci jàmm. Mhm. soo amoon kàddu yu mujj lan lay doon. waa ay kàddu kent la rek. Mhm. waaw ndax tamit doomu aadama moom fekkee yàlla dala boole ay nit ñoo xamante ne. dañuy ñëw loo wax dëgg te yàlla rek tax. Mhm. ñooñu waroo leen daw da leen war a jàpp te rek tax te man yàlla damaa boole ñu mel noonu. Mhm. samay mbir lu mu dëgër dëgër dëgër yor naa samay grand yoo xamante ne fu ma leen fëggee rek li war si man ñu def ko ndax tey jii su ma fi romboon tey jii nga def dara ma war laa wax ma war laa wax dëgg. Mhm. nga ñëw gis ma ne dama eh jaay waaye mbër gëj nañ gis am jàppal ci lii. su ma ko jëlee. boo léegi mën ngaa nekk si ay danger. pour ma wax la dëgg day métti. Mm-hmm. man moo tax dundoo ma doomu aadama man du tàllal sama loxo tey su ma ñëwoon boo ma ñe boo ma mayee 1000 francs su ma génnee dina am lu ma métti trop ndax damay bëgg su may nekk ak yow boo ma magee sax bu ñuy ànd nañu ànd si dëgg. Mm-hmm. te xam nga tamit temps bi léegi loolu moo ko xaw a yàq moo tax man bëriwuma ay xarit aw ma sax xarit samay moroom mag rek laay àndal ñoo xamante ne dangay taxaw ñu lay conseillé. mu leer la ñii nekkuñ say xarit say grand lañ lay jàppale la conseiller. yàlla ñu mel noonu la ma dénk. di sant nag sama waa koñ. waa Géejawaay corniche ñaari boulangerie. marché maam jaara amoo seen fay Géejawaay yëpp rek. su ma limee damay juum. ay yi nekk Géejawaay yëpp maa ngi leen sant leen gërëm. rawati nag sama waa garage waa ancien piste ba mécanicien yi nekk foofu ouvrier yi nekk foofu ndax man mécanicien laa su ma toogee aw ma combat maa di liggéey. tooguma fi naan damay xaar ba komba combat wala ñàkk combat. damaa gëm métier ba mu juddoo ba tey métier laa xam mosuma toog di seme bu dul fii maa ngi si weñ yi di liggéey jàpp sama ñàmbur sama garage bàcc logaan ancien piste maa ngi foofu maa ngi sant bàcc logaan bu baax a baax a baax ak sama gars yi nga xamante ne ñoo ne ancien piste ba yëpp ku mel ni Pape Mandiaye sama boy na foofu ñoom Mballo Talla sama mafia bi ñoom Sitta booy yi ne pàq bu boo yëpp awma seen fay ferrailleurs yi nga xamante ne ñoom ñoo ne ancien piste ba ñoom ñëpp awma seen fay ku si mel ni nag suñu grand Pa Mama Fall mm-hmm. ku ko xam boo nee Guédiawaye rek mënoo ko see génne xamul mbër mi école Mor Xorom la nekk xamul kii école Balla Gaye la nekk xamul kii kenn ku si ne li mu si xëyoon dala koy defal te yàlla rek tax te bu lay jox lii bu lay jox ndeyjoor du bëgg càmmoñ bi yëg ko teg si dañuy conseil di waxtaan ak ñun. kon kooku ñun amuñu fayam dañ koy ñaanal yàlla yàlla kàttanal ko ba yàlla yokk wërsëgam ba fu mu bugg a yaatal rek mu yegg fa. di sant nag ku si mel ni ñi nga xamante ne ay politiciens lañ ñi nga xamante ne ñoo ne suñ koñ ndax suñ combat bi passé métti woon na trop mais ku si mel ni tey sama jigéen jaari mbay yàlla bool na ma moom may jàppale si kaw di ma jàppale si suuf président la Diop combat bi jàpp na si baax a baax a baax. ay dara combat bi jàpp na si amuñu fayam ndax lu mu dee dee woo nañu expliqué ma wax ak man si ay wax yoo xamante ne ko xool xam ne déedéet géejawaay mooy daw si yaram moom. Mm-hmm. ndax ñun géejawaay bu ñu fa taxawee taxawaay monument lañ fay taxawee. politiciens bu ñu taxawee di reyante benn message lañ leen wax ku yàlla dénk suñu géejawaay ku ko yàlla war a dénk ki may ñaanal mu jël géejawaay mooy lan ki nga xamante ne. moo war a defar géejawaay li nga xamante ne moom la géejawaay yëpp bëgg kooku yàlla na ko yàlla may ndam biir géejawaay li sant Serigne Souhaibou Ndiaye sama xarit la sama lépp la. Mm-hmm. suñu commune benee rawatina fi ma nekk commune Ndiarème Limamoulaye ñi fay xëccoo commune bi yëpp xaaj bi ñëpp samay xarit lañ président Aram Maram bu Souhaibou Ndiaye Modou Faye ñoom ñëpp sëñ Mar war a ñoom ñëpp tey jii samay wóolal lañ. tey ku ma si gis may ànd ak kii bu mu jàpp ni kii lii laa seq mu na jàpp ni ñoom ñëpp jàmm laa seq ñoom. képp koo xamante ne moo gën ci commune bi yàlla na la yàlla jox commune bi nga téyel ñu ko ndax ñun amuñ lu tamit suñuy commune ndax dañ fa nekkal suñuy raq ak suñuy jarbaat ak suñuy mag suñuy papa ak suñuy yaay te ñun bu amee lu ñuy métti suñu commune bi ñun ñii ñu ñoo koy gérer suñu bopp ndax ñu ñooy suñu jeunesse bi ñun ëllëg ñu ñooy avenir ëllëg yéen politiciens yéen laay lancer message boobu quoi. di sant naat sama waa koñ nag bu baax a baax aw ma seen fay. Mm-hmm. waaw ku si mel ni sama boy yi nga xamante ne ñoo doon sonnaat sama combat ak suñu waa écrit booy yëpp maa ngi leen di remercier ne leen nag yàlla baax na ko quoi ndax yoon ndaw boo demee nii quoi. Mm-hmm. bëgg naa si yéen ñëpp xam nga boo limee. doo juum quoi mais da nga dul motal. Mm-hmm. mooy loolu mais ku mel ni tamit Mourtala Seck ñun amuñ fayam suñ koñ nag. benn koñ la quoi mënuñ ko xar ñaar bëri na nag ay daw làqu yoo xamante ne ñu ngi ci ginnaaw politiciens yi di def naka sudul noonu si koñ ba ñun xam nañ lépp mais suñ koñ na leen leer ni décision boo xamante ne ñoo koy jël biir commune Ndiarème Limamoulaye billaay wallaay wa taalaay suñu waa suuf su weex ñun am nañ fa baat am nañ fa base bu dëgër te ñun suñ koñ ku yaakaar ne mën nga ñoo nax yaa ngi nax sa bopp bu la neexee mën ngaa wëri wëri jaar fu ne nag. mais tôt ou fii ngay taxawaat su ñun di sant nag waa Fatick sama mag yi nekk foofu sama doom bàyyi keroog dañoo bàyyi li ñuy def lépp billaay jóge ba Fatick ñëw nekk ak man fii ñaari fan ngir sama komba bi ndax deret dafa fort di jëjal suñu mag Cheikh Cheikh Diop di la sant la gërëm combat bi jàpp nga si def nga si li nga war a def baaba su lay di ñaanal yàlla seen yaay mu yàgg fu baax a baax yaan lay kay tax di ko ñaanal yàlla njaboot gi màgg ba mu fekkee seen njëriñ di sant waa Diouroup sama Cheikh Daouda Ndour sama xarit la sama lépp la waaw kooku moom bàyyi ma si def code quoi ndax moom xam la man xam naa. Mhm. waa di sant nag képp koo xamante ne ñu ngi toog di ñaanal njaga doole ca njaga yëgu leen. xama seen fay. Mhm. waa di laa waat message Aziz Aziz Ndiaye maa ngi lay xaar ci combat Gaston combat bi combat Eumeu Sène ak Bombardier bii di ñëw. maa ngi lay xaar bàyyi ma ñoon laa soxla wala nga xoolam foofu mbër bu la neex nga dugal ma si journée boobu Aziz Ndiaye message boobu yow yaa ko moom dénkaat naa la ko nag bu baax a baax ku si mel ni tamit Mourtala Seck sama frère la sama xarit la aw ma fayam loin la may defaral barki yonent Yàlla texte di ma woo di ma wax dëgg guddeeg bëccëg suba ak ngoon kon ñooñu aw ma seen fay. di sant sama ñaari gars yi ma àndal nag Assane Badiane moom Tivaouane Pël lay jógee di ñëw chaque jour. muy bànneex muy naqar day ñëw koñ ba di ko assister ak ñun kon kooku ñun amuñu fayam te ñun joxuñ ko paas joxuñ ko lenn mais dañoo jàppante te yàlla rek tax cee waxi nopp di sant mafia dawal ko sareet yëpp nag ñoom ñëpp fàttewuma kenn. gis ngeen noonu lay demee ci jàmmaarloo tey Jador lañ dalaloon. waxtaan ak moom ci combat bi mu jóge ak li nga xamante ni moo nekk ci kanamam di ko ñaanal li ne ci kanamam dàq li nga xamante nii moom la jot a jàll. di leen jox dig daje beneen yoon ci jàmmaarloo Wassare Lamb jaa ngeen jëf.